gars yi ñu ziar leen béggal leen bu baax a baax information yi wér te wóor yëglekaay yi daanaka dana ci gën a fës as yëglekaay ak mondo ak li nga xam ne moo nekk l'équipe journal yi suqeekoo ci Sénégal ginnaaw bu ñu leen nuyoo encore une fois béggal leen sant leen ci ànd beeg ñun ànd boobu am na solo ñu leen di ñaan ngeen di def seen i abonnement yow mi ko def ba pare cant ngërëm ñeel na la yow mi ko defagul dabbar ñi ko bu baax a baax aimé vidéo yi tamit dana nekk loo xam ni mbégte lay doon ci ñun ñi nga xam ne daanaka dañuy daagaanu information yi wér ci yéen ginnaaw bu ngeen digloo publicité bi nga xam ne am na njëriñ lool population de Thiès xibaar bu cuqur mbuuc yow mi doon tabax ceer teg bagage yi seer ba nga mujj bàyyi ko gars yi tey ba tey ba yi andi nañ ci xéewal goo xam ne euh, gu mucc ayib la euh, Moussa mi nga xam ne mooy seera bi ànd ay rek rakam ñu ci mel ni ñoom Ousseynou ak ñoom Assane euh, daanaka lépp ngi tolloo ci marché centrale bu Thiès gars yi bagage yi kenkaayiri kenkaayiri sénéral la ñu teg ci taabal ji lépp loo xam ne jëm na ci xeetu tabax maanaam nga commencé ci commencement fondement bañ lay jox say caabi monteel la say toilette monteel la sa li nga xam ne mooy ay buntu xam ne mooy ay lampe plombier bi ak lépp loo xam ne jëm na ci xeetu ba tey bay am nañ ko ñu ngi ci marché central bu ba ci euh, moom la leen askan wi xamee tey jaamu soxlay askan wi ci njëggu yomb moo leen tax a jóg bagage yaa ngoogu fer beeg ciment beeg béton bi ak lépp li mu war a àndal livraison yi dana gaaw njëggi yomb na lépp a tolloo foofee ci tey ba tey ba yi fàttewun karaw yu bees yi nga xam ne bees peq la ay salaire nag yéen yi ne ci àll bi maanaam bu ngeen amul kura salaire yi ma ngay dabbar ñi ko fee nga xam ne daanaka mooy tay ba tay bay maanaam ci gàttal mboole seen lépp lu ngeen bëgg am na fa moo leen di may xibaar yu am solo yi mi nga xam ne moom Davies daanaka ma nga nekk fële ca Bayern Munich fi mu toll nii Real Madrid ci as yëglekaay daanaka jël na contact ak Assane bi nga xam ni bu ñu déggee Assane nag bu ñu ko mënee ci karañi ci wàllu wolof mooy ki nga xam ne moo yor am jënd akum njaayam te moomee di Davies lépp da koo jël teg ko ci loxoom kon daanaka fi mu toll nii loolee da koo bàyyi ci loxoom mu loolee nag daa 2024 la ñu gën a taxaw xam ni dana dugg si foofee ca Real Madrid ndax moom gone gi bëggut a signé waat ab contrat ak bi Munich te bëgg-bëggam mooy dem fële nga xam ni mooy Real Madrid bu boobaa ah, di fa doxal mëndoo nag lanu fa soxal tey mooy Barcelone match bi nga xam ni tey dina ko amal bu 20h jotee match boobee nag catalan yi ñoom ñëpp ñi ngi koy xaar bu baax a fii ci Mundo ah, Deportivo match bu nar am solo na nag ci course bi nga xam ni mooy course titre bi kon gone Barcelone yi nanu góorgóorlu am ci ndam buñ ci amee ndam nag leneen li ci des yëpp dana mën a lijjanti solo la ñuy jógee ni coow fii ci réewum Sénégal daanaka nag euh, dañuy ñëw ci yëglikaay bi nga xam ne stade waaye yëglikaay ba la mu wax lépp du daray Sénégal ndax da ngay génn bitim réew dem fële ca Sadio Mané ñancoon national dem ci Edouard Mendy dem ci ki nga xam ne daanaka week-end euh, décisif la wax boo xam ne gone yi war nañ koo am kenn comme ci man di doon match ya nga ca war a am am na solo ñu mën cee tippan ñi Boulaye Dia ak euh, ne mooy yilimaan attaquant ñëpp daanaka dégg jàmm fi mu toll ni nga wax ci record yëglekaay moom it record moom gën naa yaatal li nga xam ne mooy Sadio Mané match bi nga xam ni moom it dana ko amal moom gaynde Sénégal gi waaye yilimaane attaquant yi Marseille tamit mi ngi koy bàyyi xel di bàyyi xel ki nga xam ni moo nekk Ismaïla Sarr Iso ñoom ñaar ñëpp fi mu toll nii daanaka leer na naññi heure bi jot na tey ñu ngi leen di bàyyi xel ci seen supporters yooyu nga xam ni wax dëgg yàlla yar ak teggin amuñu ci dara Kalidou Koulibaly Al Hilal al fi assuré na li nga xam ne mooy l'essentiel bi bi muy jàkkoog jàkkaarloo ak gone al fatix yi ndax am na ca ndam te daanaka ñu ngay génn di wéy di nekk ci bopp classement bi nga xam ne mooy championnat Arabie Saoudite ca njobbaxtal ba ñoom kese ñoom dong ñooy gësëm gësëm na démb moom Paris Saint-Germain ñetti bal ci dara la am victoire bi nga xam ne daanaka doon na ko daje gone Montpellier yi gone ànd ak Kylian Mbappé euh, victoire boobee nag daanaka dana baax ci ñoom bu baax a baax ndax fi mu toll nii Paris Saint-Germain caaxaanatul ginnaaw bi mu fexee ba ay supporters am dañuy seetaan si match à domicile yi te duñ ci fay tous tasar loolee club bi moo ko def muy bu njëkk nag ci adduna wala ngal kàpp